mbokk yi ñu leen di nuyuwaat di leen ziare tey jii ñu nekkaat Darou Mousty Darou Mousty nag di dëkk boo xam ne dëkk bu sell la di dëkk jaamukaayu yàlla bokk ci dëkk yi nga xam ne ci ay ngëneel la ci senegal rawatina yoonu murid tey nag ñuy nekk ci waajtaayu màggal Darou Mousty ndax saa bu weer wi duggee rek xel yëpp dafay màcc jëm ci daaru naam nag jamono ji soppeeku na ak li nga xam ne dafa dugg ci réew mi. di ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne moo fi mën a jëlee mbas mi jëlee ko fi ban delluwaat suñu activité dellu ci nañ ko daan màggale tey nañu toog fii ci suñu waajur suñu kilifa suñu Cheikh Astou fay nekk chef de village Darou Moussi màggal Touba ñëwaloon nañ ak moom tey ñu dellusiwaat ak ñoom ñu bëgg a waxtaan ak moom nag ci maam Thierno ak lan mooy lay Darou Moussi ak lan moo waral màggal gi. Euh, jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant. rajo bi ak télé bi bi ngeen yor di ñaan yàlla barkeel liggéey bi te saxal leen fi nit nag mënut a wax sax ci waa waajuram lu am solo waaye nag euh, màggal gi dafa jub bu mosaan jubit faaw danañ ko def màggal gi nag dañ ko daan defee bis bi nga xam ne bii ci la borom daaru bàyyee bàyyi ko àdduna dem barsax sëñ Modou Moussa lañ ko tàgg woon mu joxe ci digal loolu ba ñu demee ba sëñ Fallou woote carrière kilifa yëpp dem ci carrière bi ba ñu demee màggal gi jub sëñ Modou Balla ànd ak sëñ Mahmadan maa ànd ak sëñ Mahmadan nu di ko nuyu sëñ Fallou sëñ Modou ne ko màggalu daaru gi dafa jub may laaj nag dañuy bàyyi màggal gi te wéy ci carrière bi wala dañuy dem màggali dellu si ci carrière bi sëñ Modou ne ko bis bu ngeen jàppoon màggal gi mu ne ko bis bi noo ko jàppee woon bis bi fi borom daaru jógee mu ne ko loolu du bisu mbégte bis bii mu dajeeg sëriñ tuubaa Ndar sëñ Touba xamal ko ne ko li mu wuti woon lépp am na ko borom daaru xamal ko ne ko li nga ma dénkoon dara yàqu ci mu ne bis boobu mooy bisu mbégte na ngeen ko def bis boobu sëñ Fallou moo ko toxal si fii loolu ma waral màggalu daaru si ndax sa borom daaru dafa teeru ju woon sëñ Touba ba mu ko teeru jee mu ne ko li fi bàyyi woon de dara yàqu ji moom it mu xamal ko ne ko li mu wuti woon lépp am na ko sëñ Fallou nag moo indi bis boobu ci moo moo indi màggal ngi ci bis boobu ñu di ko def nag waaw boroom daaru nag dafa jóg rek ànd ak sëriñ tubaa loolu nag man waxuma ko kenn waxu ko sëñ Touba ko wax def na Ceerno mos a tàggoog man ci ndawam ba ci ak magam waaw loolu sëñ Touba ko bind wax ko dellu ko xamal ko ne ko yaay sama përëgum day joor ba muy demit ñëpp a ngi fi nag bi sëñ Touba dem ci géej gi ñëpp ngi fi Ceerno képp du woon mbokk mbokk yi bari woon nañu lool waaye ba muy dem nag Ceerno la woolu ba mu ñëw mu dénk ko gannaawam taalibe yéeg njaboot geek lépp la ko dénk waaw doyloo ko ci lépp dénk ko lépp Ceerno téye ko te booba ñëpp a ngi fi nag léegi nag kenn ku ne mën ngaa bàkku mën ngaa wax waaye sëñ bi moom ba muy dem mennum Ceerno la doyloo moom la dénkoon lépp dénk ko njaboot gi woo sëñ Fallu ak sëñ Modou Moussa teg seen loxoom ci seen bopp ne leen dénk naa leen yàlla ak yonent bi ak seen baay Ceerno seen baay Ceerno jooju sax am na ñu koy contesté waaye ku koy contesté ku ne sa baay a ngi fi woon sa maam ngi fi woon te dénkuñu la ko dénkuñu leen ko woon waaw amuñu soxla ci ñi koy contesté lim ko wax ne ko yaay sama përëgum day joor lim lim ko doyloo woon ba bàyyi fa ñëpp dénk ko njaboot gi bi mu dikkee gis na loola sëriñ bi yore njaboot gi fu nañu bëcc bëcceeku fa moom sëñ Ibra Faty ba yàgg mag ñi dajaloo ne ko ñax goo ngi bëgg a lakk gu tooy léegi tasaar tasaar na jigéen ñi delloo nga tasaare dongo yi mu ne leen du ma jigéen ne jigéen ñi du ma tasaare dongo yi dama leen di yor ngir sëñ waa ci boppam la ma waxoon dara du ko dindi waaw la ma waxoon dara du ko dindi la waxante woon ak man dara du ko dindi ndax du waxe bànneex du wax lu dul sotti ndax lu mu wax lu ne ci boromam lu ko jëlee loolu leen Cerno wax ñu tas mu toog fa yor njaboot gi toog nañ ba benn bis mu nekk ci jàkk ji di lawraat ànd ak mbokkam di taalibe muy sëñ Mor Jëbu ñaar jóge ca gannaaw dikk kenn ki ne ko yëngali xew a mu ko déedéet mun ne ko dañoo wax ne mu Modou Bamba mi ñu yóbbu woon ci géej gi jóge na fi kenn ki ne ko man kay ceerno mi doon dokkalu ceex laa xamul nu muy def mun ne ko ceerno benn soxna la yor muy fat ñang day def ne man rek di xëy ci tool mag bi di gontal boppam loolu bu mu la jaaxal ba mu demee ca kër ga di jàng soxna Faati sa moo woo sëñ Mor ne ko xanaa la ngeen dégg dafa neexut mun ne ko déedéet dañoo wax ne sëñ bi dafay jóge mun ne ko loolu amut sëñ bee ma woo ne ma loo gën a ragal ma ne ko bàmmeel mun ne ma xanaa bu ma defee bu ma la defalee ni yonent bi defaroon day Sidna Aliyu da nga fa ñeme soxna Faati ne ko lu mu ko defaloon mu ne ko da koo jullee dugg ci bàmmeel bi nangu ko ñu suul ko mu taxaw ñaanal ko mu ne ko soo ma defee loolu day mbàkke danaa fa ñeme mu ne ko maa la koy defal te sëñ bi du soxna Faati sa ne sëñ bi du waxee bakkan du wax lu lu yàlla dogalut du wax lu neex kenn loolee moo giifal yëf ya bañ ca tegee ay fand sëñ bi bindub leetar xonqal turi ñooñe ne leen nañ ma watandiku kooku mooy Ceerno mu jógee foofe ñu tudde woon bay dee sancal ko mu dikk daaru mar naan sanc fi dëkk bu mas sañc kër sëñ Touba gi lay jëkka sañc boo demee daaru mar naan ba tey kër sañ Touba ga moo féete sowu wuuf jumaa ji këram nekk ne ca wàlla kër sëñ Touba gi lay jëkka sañc def ci jigéen ñi def ci euh, yére yi def ci téer yi def ci kaam def ci lépp waaw dem wuti feneen fu mu dëkk moom waaw foofa la jëkk a sañc ba nekk fa ba sëñ bi dikk jolof dongo yi xeex ak pël yi ñu rey ci ay taalibeem ca la jógee nag ne ruur sama tool yi rey sama dongo yi layoog man yey ma fii rek lañ ko ma ne kon damay gedd bawol daal fi jóge dem xabbaan ba mu demee xabbaan mu xat waaye mu bàyyi fa yetti daara mu bàyyi fa daara yi sëñ du Xari Mbakke mu nekk jëwriñ mu bàyyi fa daara yi sëñ Mat Jang xabbaan mu nekk mu nekk daara mu bàyyi fa sëñ Paate Sàll mu nekk daara mu jàll gaawaan mu xat mu dem piir foofa la ko ndawal sëñ bi fekk ne ko sëñ bi nee na na nga dem Mbakke Kajoor te toog fa mu dem Mbakke Kajoor toog fa ba sëñ bi bindaatub leetar yónni ko sëñ Abdu sëñ Amsatu Jaxate ca Jolof mu fekk sëñ bi Mbàkke Kajoor ne ko sëñ bi nee na nga dox ba yoor yor bu góor jot nga taxaw julli ñaari rakka foofee tudde naa ko Daarul Mooti te it Ceerno na nga xam ne lu la fa fekkut day lu ma mënut mu dikk ba fii ci yéer gi fii gendarmerie bi nekk tey mu wàcc fi daan na gees Moor Jaxate ne ko jàngal gës bu mu jàng gës bu mu julli ñaari rakka daal di toog foofa fanaan fi ci taatu yéer gi ñu tàmbali gor bi waaw juróom-ñaar ñu fi fanaan ba tey seeni sët a ngi fi ñu sëñ Paate Sàll ak sëñ Aliou Ñang ak sëñ Mor Mbay Kaag Wàkk Kaag ñooñu la fa nekkaloon ñu ñu fanaan fi ba fii mu seeni sët a ngi fi ah euh, mu fanaan fi ñu xëy tàmbali gor bi mu gor dëkk bi sanc ko kilifa gu nuyu sëñ Touba bi mu ko sañcee nee na la demal fekk Thierno ca sañ ca gorom boobee mu wutal la fa kër mu yebal sëñ man Mahmoud Mbegere la jëkk yebal mu jox ko kër mu yebal sëñ Massamba Diop mu jox ko Daaru Diop mu yebal sëñ Mor mu jox ko Ndaamu Modou Mati mu yebal sëñ Siré Lo mu jox ko Sànna mu yebal sëñ Adama sàll mu jox ko Ndëngu noonu la ko jàppee ba mu àgg ba muy jógee Mbàkke Kajoor di gor si fii it dafa bàyyi suufu Mbàkke kajo bi nga xam ne daaray Abdu Mbàkke woon di di bokkul ci Mbàkke Kajoor muy daaru muy fii ñu tudde tey daaru Marnaan mu sancal mu sañc ko def ko kër foofa la sëñ Cheikh nekkoon mu wëlbati ko dikk fetto sanc ko def ko daara mooy fii mu du fay fetto nekk waaw bi mu dikkee fii it mu sanc daara yi daaray kër Aliou Ndiaye daaray kër Mbay Ndiaye daaray Tayba Mor Jobbe Sill daaray Modou Fall Pew daaray Ibra Fall Delbe noonu la ko defe dëkk bi wër ba kër ñëpp sanc mu sanc dëkk bi lu mu fi mës a liggéey it la ko yót amul lenn lu mu mës a ba xam nu mel bu dee dugub sëñ Tuubaa la ko yót bu dee gerte gi ki ko jaayi tëngéej boobu tëngéej la ñuy jaayi gerte gi ki ko jaayi tëngéej day jaar njaarim fekk fi sëñ bi jox ko gerte gi sëñ Mor Jaabu def na ci kéemaan jaayi na gerte gi tëngéej sëñ bi ne ko boo dëppee nga jaar njaarim jox ko sëñ Tuubaa bi mu dikkee jox ko kayit yi sëñ Touba ko ko Momar desul dara mu ne ko ah déedéet sëñ bi waxaat ko sëñ Mor Jóob bu làmb mu des tarañso tarañso ñu bari xamuñu ko mu daal di génne tarañso ne ko mi ngi nii de mun ne ko lii de ci ci gamoo la ma ko sa borom xamaloon waaw lii la Ceerno nekke woon nekk fi nag Ceerno nag mbiram mooy liggéey jaamu yàlla jàppu njàmburam waaw dama laa wax ne njàmbar gu mat sëkk xam-xam bu mat sëkk diina ju mat sëkk ngor gu mat sëkk ah bu mat sëkk ah xamit na xam nangu caa tab bi nangu ndigal ci ña muy diisool di tab boo xam ne bii du jeexate lu mu am joxe ko moom mooy Ceerno taalibe gu mat sëkk nag daa wax ne bu ñu ma dalal la ngor ak diine ah, ah, ngor laay jël waaw ndax ku góoriwul rek doo am diine moo tax mu ne man de waxtu bu ñu ma dendale ngor gi diine ngor ga lay jël ku goree ne moom kenn mësu koo gis xami na xamit nangu caa tabbi waaw du delloo aji laaj mukk ci àddina bu ko sëriñ bi woo it amatul soxla amatul lu bëgg la sëriñ bi bëgg rek lay bëgg lu mu lëgg sëñ bi la ko yut bu ko sëñ mosaan woo day waaj ba mag ñi am ko ko laaj sëñ Matar Samb mu ne ko sëñ bi bu ma woo dama koy wujji waaye damay waaj lu ma mënta bàyyi gannaaw dama koy yóbbaale ndax bu ma nee fii ngay teggee ma teggee fa bu ma nee fii ngay toog it ma toog duma ma dellu si gannaaw moo tax lu mënta ñàkk dellu dem rek dama koy yóbbaale lu sëñ bi soxla it moom la koy laaj soxla sëñ bi bariwut kenn xamul soxlaam euh, dund bii mu ko yot sëñ bi mosu koo yónnee mukk ne ko indil dund bi moom mooy toog ba yàgg mu bojj dugub ji rek sëf ko ci baam yóbbu ko am na ci boo xam ne téeméeri baam la. mbaa mu ne sëf barigo ak téeméeri nit ak téeméeri yat ñu yóbbu ko ba njaarim jox ko ko jëbal ko waaw loolu def na ko ay yoon yoon dara nag du taa kii yóbbu addi ji njaarim kii gontoon yóbbu ko day fanaan si dànq kii xëyee fii dajeek moom dànq di yóbbuwaat moom it waaw dànq googu ci danq seen booba fii la ñuy jaar rek wuti dànq waaye ki yóbbu woon biig day gontewaat njaarim fanaan dànq ki xëyee fii bu dikkee danq fa lay dajeek moom ne ko may de addiyee laay la ma sëñ bi joxaat ma di ko yóbbu lii la nekkee woon ak sëriñ Touba doon taalibi bu mat sëkk nanguwul lenn lu dutug taalibi bëggul lenn lu dutug taalibi te ceerno taalibi gi li muy rëy rëy yàqulu ko ci sariya dara tànkam bi ci sariya la ko teg kenn mënu ko cee jëlee am na ci koor goo xam ne dañuy woor ñu ne weer wi sëñ bi dafa wax ne weeru seytaane la sëñ Abdou Khoudous sama ko nettali nee na keroog ba nuy dem njaari njaari mag sëñ bi noo ànd nee bi mu ne ko na woor ngaa mun ne ko waawaw ndax weer weer woowu moom nga wax yaa ko xam waaye nun xamunu ko nun li nu xam rek alxuraan dana bu ngeen ko gisee na ngeen woor wala ku ko doy bu leen gisee na ngeen woor lu ko sëñ bi tontu Thierno bu ñëpp dafa new daa nopp lii la wax lii lii la ko wax bisu keroog ah moom dara dara da ca teg tànkam daa wax ne li ak taali bi nekkul ci soli sagar nekkul ci sëqal bopp nekkul ci ñuy jàng ngay dañ dara nee na ak taalibe mooy nga téye taalibe ci sa te taxaw nag ci sariyatul islaamiya ndax nee na sariya jéeri la jéeri bu sa ñaar tànk daggoon nit mën ngay darngu wala ngay raam ba nit fekk la fa waaye nag nee na aqiqa moom géej la da ngay mën ndox wala nga ànd am ndox wala nga amu batu mu ne su yaram moo tax mu fab tànkam teg ci sariya te jaawale wu ko dara te yàqul ci taalibe gi lu toll nii am na lu ko sëñ Basiru seereel ci loolu dafa dafa waxoon waa kër gi ne leen doomam yii ne leen doom yi sëñ jigéen yii nangeen ngeen leen wattandiku ndax ku ci yor boo leen merloo dara mun laa tee dem sawara waaw ba ko sëñ ba sëñ Basiru woo sëñ Abdou Khourous am ku ko bëgg a jox sëñ Abdou Khourous nettali ko lii sëñ sëñ Basiru dana sëñ Abdou keroog man ak sañ Abdou noo ànd ak Baye Omar Diop ak Mbaye Ndiaye waaye bi daf ne sëñ Abdou xanaa xam nga ne Ceerno kenn ak siwu ko ci dee def ak ci taali bi lii kat taalibe gu rëy rek a tax mu def ko waxoon na ne it ñii sëñ bi yor na leen def ne waa kër yont bi buñ leen fab buñ leen xool buñ leen def dara loolu lépp ak taalibe la waaw amul dara it du denc dara lépp sëñ Tuubaa ko moom waaw bi mu fi nekkee it gor na fi ay dëkk yu bari gor na fi koso sëñ bi ko ko digal kere moom fa yebal sëñ Mahamadan da ko ne koso day dëkk boo xam ne sëñ Tuubaa ma ko digal musuma fa liggéey it lu ma joxul sëñ bi te ku ma fa yebal rek naqari gi tax nga dem sëñ Mahmadan na ko man de boo ma ñaanalee danaa fa toog mu ne ko Mahmadan boo demee na nga fa ci way ci jaamu yàlla ak liggéey su la àddina bépp doon jox te liggéeyu dañ naa li muy am fu mu dugg soo jaamul yàlla ba faatu it àlaxira amul doomi diw waaw da ko rëccu soo demee nag wayal foofu ci loolu waaw te yaakaar yàlla rek te wéeru ci yàlla ndax loo wéerul dul yàlla da nga ànd ak loola daanu lii la ko wax loolu la def sañ ci Daaru Salaam yebal fa sañ Cheikh Faty Fall sañ ci Cinkóol yi yebal fa sëñ Ousmane noonu la def dëkk yi ba mu àgg damaa wax ne borom daaru xalaat bi rek ci àdduna euh, dafa jara roy dangay seet li tàmbalee daarul man naan ba ba ngay dem Bélal daay get fukki kilomètres yu ne mu gor ko def ko bu dëkk yebal fa doomam bu loolu amul woon tey nun nu ñuy def te booba mbay xew kon fu nuy béyee waaye mosoo fee dégg xëccoo suuf mosoo fee dégg xeex suuf ci doomam bi kenn ku ne jox na la loolu doy yebal na la ci dëkk boo xam ne la nga fa nekk mënoo koo bay sax ba ci nun ñi di sëtaat yi ah, xalaat boobu rek jar na roy ko waxuma la li ci biir baatin bi ak fi mu jaar ak sëñ bi ah, li sëñ bi naa yéem naa ko ngir lim xam ci araf te jàngu ko waaye yéem na man ngir lu xam-xam ba bari bari xam ne may baru lu loom yéem naa ko ngir lu mas am rek man la ko jox waaye yéem na ma ah ngir lu ma jox ma jox ko eh, nit ñi yéem naa ko ngir fu ma ne foo néewut la yemale waaye yéem na ma ngir xam ne ne fu ma ne maa ngi tagg rasool baa ma nekk ci alxuraan seere soosu kenn amu ko kenn rek ko am ci yoon bi te it bari na ñu nekk ci yoon wi di wax te lu ci nekk la nga nekk Thierno la ko def ndax ñëpp la ko joxoon sëñ Saliou mu wér kay dafa wax ne bàyyi noo lañ dénkoon lañ ñu dénkoon nun ñëpp te bi sëñ bi ñu bisee nangu wunu sëñ Fallou ne sunu baay bu sa mag ju baax de sunu baay bu baax ba dafa noo jàngal ba ne ar mu yar yarnu ba ne nër yeenu ba ne jar maag sëñ Modou Moussa ne Thierno leen defal loolu loolu mooy sëñ Ibra Fati ci lii la nekk taalibe gi mus sa am doom mukk fu sëñ bi ma di nekk danañu laaji tur wi bi mu nekkee Jolof dañoo dañuy laaji tur wi ni tey xëyee Mbàkke Kajoor te booba diggante Mbàkke Kajoor ak Jolof amutu yoon da ngay féetal rek bi sëñ Abdourahmane juddoo mii nga doon wax léegi dañoo dem laaj ko fekk muy sëñ ci këru Abdourahmane gi mu ne nañ ko tuddee Abdourahmane ñu teg cee ay at at ak genn wàll sëñ Abdou Khoudous mii juddu ñu dem laaj ko jëlee jógee Mbàkke Kajoor dem Ceyin laaj ko sëñ bi Jolof fekk muy sëñ ci kër gu Daaru Xudus mu ne boo demee nañ ko tuddee Abdul Xudus 1911 la sëñ Mahamadan judd foofa lañ ko fekk bañ ko fa fekkee leetar ba sëñ borom daaru bi noonu ci la wëlbati ko bind aw turam ñoom ñëpp lu dul ñi mu tuddee sëñ Touba ak ñi nga xam ne leen a jéem a da leen doon jéem a tuddee asasul basar mooy fukk yooyu nga xam ne duñ fekk bis penc ñoom rek la laaj ñaar ñii nag laajul seen i tur ndax da leen bëggoon a sëñ tudde sëriñ Touba muy sëñ Cheikh Fati Fall ak sëñ Cheikh Khady ñoom ñaar moom moo ko joxe ne euh, tudde tudde ko sëriñ bi waaye bi mu ko ko tuddee kenn ku ci nekk wax na wax wax yónnee na ci sëñ bi ne ko yow laa ko tuddee sëñ bi mu ko ko laaje woon dafa naaje <coughs> ba tudd jot borom daaru ne nañ làmbatu daal di tifli ne laa bi lettre bi dikkee sëñ bi def ci loolu. daal ciy def euh, ne abibu nañ ko tuddee abibu laa loolu mooy mooy taalibe Ceerno gi nga xam ne li mu nekke woon euh, saxal ci dongoom yi saxal ci doomam yi yar leen ci da leen ne woon na ngeen fonk taalibe gi ak taalibe rek moo am njariñ sëñ Abdou Khoudous daan am na ku mu ko waxoon ne ko doomi sëñ bi amutu yoon ndax lii may def kat man yaakaaruma ci dara seen baay rek laa yaakaar nit ki nag mënoo yaakaar baayam di ko sakkalu yoon booba ku ko naan doon ñaan soxna la mën ne ko yow kat da ngaa yor lu ëpp ñeent mu am geneen kilifa gum ko dendaleel mën ne ko ñooñu du ñu maas ndax nit mënoo koo yaakaar mënoo yaakaar baayam di ko sàkkalu yoon te amuñu yoon gis nga ma lii may def lépp ngeen defee ne dara mu ne ko ah mu ne ko man sëñ Touba rek laa yaakaar yow ma la xam lii la sëñ Abdou Khoudoss wax kon nag kii mooy na fii lañ ko doon décorer. décor li taxoon ñu di ko décor dañ ko ne way gi nga way ak nangu gi nga nangoo liggéey ah ak jàpp gi nga jàpp sa bopp tax na fokk ñu décorer la ndax ci temps de guerre bi tubaab bi dañoo ñëw fii mu jox leen juróomi téeméeri bërigoy dugub ñu ne ko dañ koy leb lebal la juróomi téeméeri bërigoy dugub ko soldat si mu jox leen ko muy 39 40 jox leen di juróom benn téeméeri bërigoy gerte. lebal leen ko ba fi mu ne fay ñu ko gouvernement français ñoo si loolu mu jox leen ko nit ñi xamul sax dañ naa sa bojj nañ sàq Cerno ya fekk na tubaab bee waxanteeg moom ne ko dañ koo sant gërëm ko ba tax ñu di ko ñu décoré ko waaye mu ne moom tubaab français lu mu laal rek soxlaatu ko ndax dalaa wax ne da bañ tubaab français jar na doy nag jaamu yàlla ndax sama sëriñ bi sama sëriñ bii nga xam ne da joti wut ak ñoom dara jàpp njaamuram di liggéeyal yàlla ñu xëy jël ko rek yóbbu ko ci ci lu dul dara rek loolu loolu tooñ nañ ko loolee nag moom mu tax mu bañ tubaab moom loolu rek tax mu bañ tubaabu français nde bañul allemand yi bañul ñi dëkk Belgique bañul américain yi boo gisee ci temps de guerre bi nga xam ne yàlla dafa dogal buñ dikkee rek kenn ñemewu ko ne français yi rey nañu allemand yi ku dikki rek da ko naa allemand yi rey nañ français yi mu bég loolee lépp rek gëm sëñ tubaa ak xam ne tooñ nañ ko rek moo taxoon mu mer ci waaw loolu mooy sëñ Ibra Faati bu ñu ci royoon loolu du am du am ndax Thierno moom day wax danga jàng wala nga dem muritu ñi mu yaroon ñëpp ay faris lañu ñëpp nag laa la wax képp ku jaar ci moom rek faris nga waaw. am na ci koo xam ne bàyyam da ne liggéeyal nga Thierno yaari at kenn mënu laa te am barke waaw. kenn képp koo xam ne roy nga ko ndax liggéey wala euh, da ngay da lay wax ne boo dikkee da lay wax ne la boo dee jàng jàngal boo dee liggéeyal liggéeyal ma wala nga liggéeyal sa bopp sañu ma la nag nag doo taxawaalu ndax mu kàllaf kenn du ko ne doo taxawaalu waaye sañ naa ne la doo taxawaaloo fi man génne na fii aw nit ngir taxawaalu rek liggéeyuñu liggéeyaluñu kenn nekk ci seen bopp hmm? mu ne leen lu yàqu ci dëkk bi yéen dama waxoon na ne dëkk bii du ma ko attelub chef de canton du ma ko attelub tubaab maa koy attel sama bopp ku tooñ ku ne wala nga def lu jaaduwut moo koy diggaaleeg yow du ko atteloo kenn du yóbbu kenn tribunal waaw léegi nag lépp dafa soppi waaw la du ko Khoudous waxoon fii nee na la nekkoon mi ngi fi soo ko wutee nañ ko daan wutee da nga ko am soo jàppee ne it boo ko wutee doo ko am boo ko wutee doo ko am nag waaye nee na lépp a ngi fi dara jógu fi xam nga sëñ Touba amul tànk gannaaw moom ku la ne woon dëkk bii bañ koy door a gor dana mel nii nga weddi ko ku la ne woon Touba gee dana mel ne nga weddi ko Touba bu ñu daan yi Touba kenn ku ne da ngay wal baraay yóbbaale yóbbu bu xorom soo demee boo xiifee kaas ci baraay bi def ci xorom si lekk ba ñaari fan yi màggal gi mat nga ñibbi. buñ nee nag léegi amatul kenn koo xam ne kii dangay nga dal kër kenn mu dina jox dara foo toll ñam yaa ngi ci mbedd mi booba kuñ ko waxoon nga weddi ko mag ñii ci armée li buñ la woon daaru la mel ñu weddi ko nañ ne du te bi ñu koy gor wax na ko moom dañoo liggéey ba ngoon jot mu ne dana mujj day lu am ndar am daaru da ngeen dem it ba matt gën fee jafe ndox am góor gu jóg ne oh ma jóg dem ci liggéey bi naka mu dox ñaari jéego mu woo ko mu ñëw mu ne ko maa ngi Mor Diabou de duñ ko fekkee waaye yow dana la fekk. keroog ba ko doom ji xëcc lay robine bi ba indi ko ci diggam mag wurumbal bi ne ko bàyyi boo jógee ci wurumbal bi kii rek ngay wiis jàpp da ko ne damay dem duma ma fi amaat fukki fan ndax lii rek li ma ci am doon dégloo <laughs> loolu la ko wax amaat fi naa si rek baag si ci buntu jàkk ji sukk foofa faatu te Thierno leen ko waxoon kooku nag mooy sëñ Ibra Faati jàngal nag ñëpp nag ñi fi raw ñëpp moo leen jàngal jàngal sëñ Modou Moustapha jàngal sëñ Fallou ma roqee Boussa ma Bañi Ndiaye euh, euh, Lampum Ndiambour Mor Abdou Sey dégg nga ñoom ñëpp moo leen jàngal sëñ ma Samba kenn royu ko ci kenn fekku ko ci moo leen jàngal ñoom ñëpp waaw dafa raw ñëpp jàngal ñi fi raw ñëpp wëlbatiku doonub taalibe nag lu muy wax rekk sëñ Touba lay wax. lu muy digle ci sëñ Tuubaa la koy sukkandikoo moom lay wax waaw loolu la kooku nag mooy sëñ Ibra Faty moo moom moom la moom laa la wax ne la mën a wax ci sa waajur lu bari waaye lii daal xam na mu ko ci moom mbas mi it amoon na fi 1919 ci dëkk bii bi commandant dikkee da ko ne lay mën a defar mbas mi li koy mën a dindi da ngay génn dëkk bi ñu lakk ko mu génn dem ci nkóol yi sëñ Abdou Khoudous ne booba noo ngi toll ci beqi suñuy àlloo lan yenu maag Abdourahmane ak Cheikh Faty Fall ànd ak moom ñu lakk dëkk bépp pétrole essence ko lakkul dëkk bi tàkk ba jeex ñu ne ko danga fi toog ba fukki fan ak juróom bu dalaatul kenn ñu xam ne mbas mi jeex na dalaatul kenn ñu soog a dikki leen dëkk bi mu soog koo sancaat lool lool lool lool la defoon mm-hmm. waaw ñuy ñaan nag ci barkeem ak ñaan ya mu doon ñaan nun jàpp ne lakk gaa ko dindi sax danoo jàpp ne ñaan ya mu ñaan ak la doon jàng alxuraan doon jàngulu moo dindi mbas ma waaw te booba bis bu set lu mat fukki nit dana ci dëkk ñaar fukki nit tubaab yi amuñ ci genn paj lu dul ñuy suul nit ñi la ñuy sotti gërësil ba weñ yi du leen dal ndax dañoo wax ne weñ bi mu dalee faatu dal ko rek mu dal mu wàll ko tubaab bi na lii daal doyut waaw waaye danoo jàpp ne moom ñaan yam doon ñaan ak ndi tegtal yam doon joxe laay yam doon joxe ne nañ ko jàng ak saar ya moo jaaxal mbas mi kon nag noo ngi ñaan ci barkeem ci barkeem Serigne Touba mbas mi jeex fi tàkk génn réew mi ñëpp dellu ci jàmm dellu ci seen bu liggéey waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam